jeunesse bu organisation bi nag ngir xamal ko lan mooy mission ak jéego yi nga xam ne rek moo ko tax a jóg ginnaaw bi ñu ko tabee ci bopp kuréel googee mu fekk jamono joojee nag le solo yëglekaay moom it xëy di àddu nag ci ngan goo xam ne rek président de la république bu Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye fas yéene nag mu di ab sorteem bu njëkk boo xam ne rek war na koo amal dooree ko fii ci déndu Afrique moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag di def Macky Sall amal ko itam ci atum 2012 moom juróomeelu président bu Sénégal fas yéene tàmbali ay nemmeekoom ci ay naataangoom yi nga xam ne rek ñoo fare fii ci déndu Afrique le terme mooy dellu soit ci wàllu diplomatie gi nga xam ne rek moo waral moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay nag fas yéene amal ay tukki nemmeeku yoo xam ne rek fii ci déndu Afrique la koy dooree yéenekaay bi dellu soit ci li waral Bassirou Diomaye Faye nag bàyyi fi réewu France daal di tàmbalee tukki nemmeekoom boobee ci réewu Mauritanie la yéglekaay fellu ko ne tukki bu njëkk bu muy amal nag fii ci déndu Afrique moom Diomaye Faye nag dooree ko ca Mauritanie danañ ca waxtaanee lu jëm ci wàllu gaz ak pétrole le quotidien yëglekaay ne moom njiitu réewum Sénégal ginnaaw nemmeeku bi muy waajal nag jëm ci wàllu diplomatie foofee ca Nouakchott bu ca noppee nag moom Bassirou Diomaye Faye dana dem ca Banjul ngir gën a yeesal diplomatie bi nga xam ne rek moo dox ci diggante Sénégal ak Gambie lépp nag ci gën koo tabax ngir wàllu dem leen tebeg dikkalante bi gën a ñoŋ l'observateur dellu siwaat ci politique diplomatique bi nga xam ne rek moom la ñuy amal ci diggante suñuy dëkkandoo yi yéenekaay bi dellu siwaat ci li waral Diomaye Faye Macky Sall ak Abdoulaye Wade Sud Quotidien xëy di dellu si tey jii nag ci conseil de ministres bi ñu war a amal yéenekaay bi ne Sonko 1 dina entrer en action ginnaaw ñetti fan yoo xam ne rek askan wi dañoo toog di leen xaar ngir ñu daal di former ab gouvernement bu cinq membre ak juróomi secrétaire d'État Sonko 1 mi nga xam ne rek gouvernement bi ñu taxawal la Ousmane Sonko jiital ko fas yéene ko doxal daa ñu amal tey jii ab conseil des ministres boo xam ne rek ca salle des banquets bu palais de la ñu ko fas yéene defee nag yéenekaay bi ne jamono ji nag dëgg-dëgg liggéey bi tàmbali na nag ndax projet yi nga xam ne rek moom la Bassirou Diomaye moom la ñu fas yéene tàmbalee doxal ñoom jëwriñ yi keneen ki tàmbalee doxalub liggéeyam nag mu di Elimaanu jëwriñ bu Sénégal source a du ñu xamal ne nag lu jëm ci yeesal yi nga xam ne rek doon nañ ko amal ca building administratif ak li waral lakk gi nga xam ne rek moo fa amoon nag jamono ji moom Ousmane Sonko nag ma ngay auditionné ñaar ci ay DG bés bi le jour xëy tey jii nag di dalal ki nga xam ne moo di Alla Kane moom moomee nag bokk ci cabinet Ousmane Sonko nekk itam nag ci ñi nga xam ne dañoo farek gauche bi moom nag ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne jamono ji nag taxaw nañu temb nag ngir suul système bi nga xam ne rek moo fi nekkoon ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne lu jëm ci coowal 94 milliards yi nag lépp daañu ko leeral ba mu leer nañ ma ngay leeral ci biir yëglekaay bi nag li nga xam ne rek moo wuutale kii di Ousmane Sonko Cheikh Anta Diop ak Mamadou Dia ma daal di fiy jële nag lépp luy ay militaire français ma ngay xamal Amadou Ba nag ne bu fekkente ni daal nangu naa des di doon nag chef de l'opposition mën naa am ay avantage yër leen boobee yëglekaay l'observateur moom général bu police nationale daal di xam ne ne nag ay coppite boo moytuwulee nag daañu ko amal ci bopp police nationale ndax kii di maam Seydou Ndour nag boo moytuwulee daañu ko yóbbu ca DGPN jël Amady Lam def ko muy adjoint yër leen boobee yëglekaay enquête yëglekaay defu càmbar tey jii nag ci li nga xam ne moo làqu ci ginnaaw passeport diplomatique yi lu jëm ci décret bi nga xam ne rek moom njiitu réew mi fi nekkoon xaatim na ko ñaar fukki fan ak juróom weeru mars Théodore Montey nag di leeral ni passeport diplomatique daal di perte valeur am jamono ji douane bu Sénégal vox populi nag ak waa douane yi nga xam ne rek ci ñaari fan ginnaaw bi ñu tegee lim bu takku ci wàllu cocaïne fii ci réew Sénégal jamono ji nag teg nañu loxo juróomi milliards yoo xam ne rek ci wàllu faux billet la nag yéene kaay bi ne opération boobee nag ñii di élément yu poste de douane bu tanaaf ñoo ko amal talaata fukki fan ak juróom benn ci weeru avril mu di ay billets noirs yoo xam ne rek war naa toll ci juróomi milliards ci suñu xaalis ñoom ñooñee nag ñu ngi toll ci ñeent bokk na ci ñaari sénégalais nag ak ñaar ci ay étranger ñu ngi leen tegee loxo nag ci ab auberge bu nekk foofee ca Goudomp ci jamono joo xam